Maintenant, l'intervention de la CDAO, moi je pense que euh, la CDAO, de toute façon, ne peut pas intervenir de manière euh, offensive di pour faire la guerre. Moi, je ne le pense pas. Parce que même tous les pays concernés la à un moment donné, am na lu leen CEDEAO wax te ñoo ko signé ba pare nanguñu ko appliqué. Mm-hmm. non non je ne veux pas revenir li may wax xam ngeen ko. donc je pense que li ñu war a def daal mooy négocier parce que ça c'est ça reste un problème interne. même si c'est quand même euh, l'Afrique n'est-ce pas qui est intéressée on voudrait que euh, pouvoir bi daal ñu koy passer démocratiquement mais li xew Niger ah waa Niger ñoo ko xam. ba ñoom ñu appuyer seeni militaires euh, waaw. xanaa waa mi peuple bi su fekkee peuple bi moo ko souhaité et je ne crois pas parce que lu ñuy def daal nañ ci def ndànk euh, négocier daal man laa gis au lieu guerre moom benn pays surtout notre pays comme il le dit euh, suñu euh, am nañu leneen gumba tal na lu nekk ba muy des tëddi tëbi teeñ comme niñ koy wax on a tellement de problème personnels que am na yoo xam ne duñ ci dugg nañ ko négocier daal bu fekkee armée bi